sent que déjà il est la li ngay def da nga ko on sent que li ngay def ni quoi. nga ko quoi te loolu dafa am parce que lu jógee ci xol ci xol lay dem yow dama ko fenn tu viens tu viens de commencer tu es tu es toute jeune et tu as beaucoup de choses à prouver waxuma au Sénégalais mais au monde entier ok Et moi je échelle boobu laa lay gis tey weesu nañ fu ñuy fu ñuy fu ñuy xoolee benn artiste bu mel ni yow di ko xool uniquement pour le Sénégal ou pour l'Afrique et li may ñaan et li may ñaan une fois de plus mooy yàlla na la yàlla booleeg ñu war a nekk ci sa yoon jàppale la nga dem képp koo xamante ni si dafa war a dafay dugg ci sa yoon pour gàllankoor la yàlla na ko yàlla faxas puus ko fële amiin ñi nga xamante ni si ñoo baax ci yow yàlla na yàlla na leen yàlla teg ci sa yoon les gens qu'il faut à la place qu'il faut Que Dieu me kanam Inch'Allah. Yalla ko Yalla def Yalla Il y la le seexlu Yalla la Yalla la Amin, amin, wow. Il y na la Yalla sam y la le Wow. ne ne allah en tout cas xam nga. waajur yi dolli ñaar merci beaucoup de de avec moi c'est gentil. non euh, sa invité sa amna bi am na solo bu baax ndax fecc nañ. wey nañ joyeux anniversaire. ñaanal ngeen ñu si. non kaay ma wax